asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokku téléspectateur mbokku internetu Safina ni leen koy waxee woon ay bés yu gàtt dinañ dikkaat fii si Safina ngir defal leen beneen émission waaye laata ñuy tàmbali rek dañ leen di ziar ziar kullukum ñu kenn góor jigéen mag ndaw ñu leen di ziar bu baax a baax di ñaan jàmm ju sax si suñu réew bi di Sénégal di ñaan uh, yàlla mi nga xamante ne moom mooy tegee nat moom moo koy teggi yàlla nañu ko teggi rawatina coronavirus bi rawatina mën na mi nga xamante ne mi ngi ci réew mi nañu ko yàlla teggil ngaañ-ngaañ bu am ci askan wi yal na ko yàlla saafaraal di ñaanal euh, wéy daw li yàlla na leen yàlla yësal yërmande seen kaw di ñaanal ñi nga xamante ne ñu ngi ci lalu hôpital yi yàlla fëgg seen bopp ak ña koy sooxu waale di dox di ñaanal kilifa diine yi jàmm kilifa aada yi jàmm ñaanal ñëpp bàyyiwuñu kenn mbokk nañ leen ko waxee woon dinañ dikkaat waa Safina ànd ak soxna Ami ñi nga ñëw fii si beneen émission tey nag ñu ñëw ba Malika seet si ki nga xamante ne moom mooy euh, oustaz imam euh, Babacar Sylla ñu nuyu ko ziar ko mu war a waxtaan ñun ci point bu am solo waaye laata ñuy tàmbali rek dañ koy daal di tax la suñu micro mu nuyu askan wi nuyu téléspectateur Safina imam ñu ngi lay euh, ziar bu baax. asalaamaaleykum wa rahmatullah soxna Ami ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu waa Safina yëpp di ñaan sunu kàddu yi fekk leen ci jàmm. di rafetlu seen teewaay fii macha allah di leen masawu coono parce que jamono nawet la ñu nekk euh, jamono xat-xat la ñu nekk te yéen a ngi def ay efforts yu rëy pour di déplacer wu di def ay émissions yu jafe mais loolu yëpp yiw la kon ñun ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm di leen wax bismillah waaye itam di nuyu waa diaspora bi di nuyu waa Safina yëpp di ñaan yàlla may nu nu yeggale émission bi ak alhamdulilahi rabbil alamin amin yaa rabbina alamin eh, imam Babacar Sylla nekk fii ci Malika nekk doomu doomu réew mi nekk kenn si réew mi yaakaar naa Malika ñëpp xam nañu ko waa Sénégal xam nañu ko ñu koy suivre tamit xam nañu ko te ñu ñëwoon seet ka ngir waxtaan ak moom si li nga xamante ne moom mooy éducation éducation nag moom mooy yar imaama tey dañu ñëw ngir xam imam yaru démb ak yaru tey lan nga ñu ci mën a wax. Euh, wuute na lool te lenn rek moo ma ci jaaxal mooy différence bi dafa sore. ba pare dafa gaaw lu tax ma wax wuute na lool te dafa sore mooy ku ne ci ñun na waajuram ak doomu teyam kenn ku ne ci ñun sa waajur ni mu la yare woon te yaa ngi xalaat ne mënoo ko yaree sa doom benn différence rek laa ci wane ñëwaguma sax ci aspect diine bi maa ngi ñëw ci aspect culture bi yaru aada yar boo xam ne ñi ko doon def tënku ñu ko woon sax dëgg-dëgg ci jàngale yonent bi mais dañ ko tënkoon rek ci ñoom seen xam ni doomu aadama war a comporte woo ci kaw suuf ci sunu aada fii ci Sénégal bokk na ci kër goo masaan dugg ñuy añ xale yëpp ci suuf la ñu toog te ku toog dangay sukk da ngay téye ndab te da ngay sëgg xool sa kanam te doo daggal sa bopp ñam mag ñee lay daggal ñam soo mësaan gis xale bu yaradiku buñ koy xas xam nga lu ñu koy yow yaa teggi ndawal parce que xale daawul teggi ndawal ci digg ndab kon bu loxo xale demee ci digg ndab bi rek mooy kooku dafa yaradiku kenn yaru ko ñu dem ba bu ñu lay xas dañ naan la da nga teggi ndawal léegi demal ci lekkukaay yi nga xool xale yi ñooy toog ci kaw ban yi kudd la ni yor ñooy luqati roof yi ñooy luqati batañse yi ñooy daggal seen bopp lépp luy légume ñoo koy dindil seen bopp te loolu bu njëkk ci yaradiku la bokkoon mais léegi nekkul yaradiku léegi doon jàpp ne loolu lu normal la xoolal bii différence ni mu soree ban kër ngay dugg nga fekkati fa yar bu mel nii loolu ci yaru démb ak bu tey différence bi dafa sore ba jéggi dayo benn beneen bi ci des mooy ci wàllum wax ak dox ak sol ak jëf bu njëkk kilifa da daan toog ci digg kër gi ku génn mu xool li nga sol eh na sigg mën la delluwaatal simmi li nga sol foo jëm yaa ngi mel ni ku bàyyiwul ay nit ci kër gi nga delluwaat changé li nga soloon kër gi ba mu jeex kenn du sol tubay tey dugal ci kër yi ban jigéen ngay fekk mu toll ci digg lu dul buy génn pantalon lay sol pour mu nekk en l'aise pantalon lay sol te day romb papaam ak yaayam ci biir kër gi loolu dafa gaaw différence bi dafa gaaw souvent maam bi doon yaree baay bi noonu maam bi doon yaree yaay ji noonu maam jooju mu ngi dund maam jaa ngi dund yaay jaa ngi dund sët baa ngi dund ñu bokk benn benn cycle bu ñuy dund am différence bu toll nii. mais oustaz gisoo ni foofu côté tubéy yooyu actualité la jamono bi moo ko laaj. Hmm, voilà loolu mooy problème xam nga jamono laajul dara ñoo koy jox lépp ñun jamono ñun ñooy définir ni jamono di doxee ñun ñooy toog ba yàgg ñu am benn yëg-yëg daal ne. modd bii daal su ma ko defee dina baax surtout artistes yi ñoom nag ñooy les grande responsabilités ci affaire boobu mooy da gis benn artiste jékki saay rek désiré tubayam ne loolu moo ko neex kuppati omi kuppati fii kuppati fii wala mu takk jaaroom dem yéeg ci kaw chaîne bi def benn démonstration xale yi gis ko sopp ko jël modd boobu véhiculé ko mu dem fii gis nañ fi mbër bu ñu dóor sax toj bët bi mu taf fii bët bi xale yi xëy ñëpp taf seen bët yi gis nga influence bu gaaw boobu artistes yi ñoo koy def mais pas jamono mais nit ñi ñooy jékki yi am benn yëg-yëg rek sotti yëg-yëg bi xale yi roy ko loolu nag lu garaaw la mooy penc lépp lu ñu fay yóbbu dañ ko waroon segg ndax influence bi ngay def ci jigéen ñi ak influence bi ngay def ci xale yi daan nañu def itam gan bu ñëwee ba dem ñu ne la gan gi ñëw lu mu sol nga ne yére bu jaune mbéj bi dal ne la kon yow li gan gi toog yëpp sa bët bi ci moom la nekkoon daan nga dugg ci kër gan ñëw ba dem kenn du xam lu mu sol ndax ñemewoo si gi xool danga daan wax ak sa waa kër ci bët am gan mu ñëw nga wax ak ñoom ba ñu may ko ndox wax ak ñoom ba ñu génn néeg bi wax ak ñoom ba ñu indi lekk te doo ŋaaŋ ci ay geste rek koo xool rek mu xam li tax nga xool ko loolu loolu loolu moom léegi xel xalaatu ko sax cest boobu différence bu gaaw nag man daf ma yéem encore da doon wane suñu mag ñi dañu xarañ waaw parce que ñoom dañu amoon ay bagages yu ni yare nit yoo xam ne dafay impacté wu ci nit ki gaaw a dugg ci moom waaw mas naa dégg sëriñ Abdou al Amin mu wax ni bokk na ci li tax yaru mag ñi efficace wuuteeg sunu yar ñun mu ne mag ñi bu ñu la daan yar duñ la wax dañuy ànd ak yow di jëf dañuy def nga topp seen ginnaaw di def xam loolu dafa efficace dafay gaaw sottikuwaat ci yow mais yaru tey nag yaru kanaara la wala fi ñoo koy wax dañ naan njabootu léegi njabootu kanaara la c'est-à-dire kanaara day jiital njaboot gi daal di topp seen ginnaaw mooy lu xale yi def rek ñu ne ah lii la jamono laaj lu xale yi def loolu la jamono laaj soxna Ami euh, jamono bu triste la nag mais luñ lu ñu xaw a wax la nii mu mel ni lu banaal mais lu garaaw la parce que nit li koy def nit mooy yar kon yar boobu bu ñu demee ba sàggane ko te démb ñun ñu amoon ci ay mag ñoo xam ne dañu efficace ci yar di xool sa comportement di xool sa kàddu sa wax da ngay wax ñu woo la ne la eh li ma dégg nga wax ko léegi bu ma ko déggati loolu kenn du ko wax nit du waxee nii boo bëggee wax nangam da nga naan lii nga xool ñu ne la xoolal sa xool bu ñaaw bi ngay xoolee rek nii kenn du ko xoolee del xef gis nga nga dox ñu ne la kaay jubbantil sa doxiin nga toog ñu jubbantil sa toogiin booy lekk ñu ne jubbantil sa lekkiin mais loolu ñun dañ ci démissionné complètement loolu nag man dama jàpp ne dafay wane ñun incompétence bi ni ci ñun ci yore njaboot ci di leen yar waaye nag lu tiital aw nit la parce que ñàkk yar mën naa tax nit ki du am diine ñàkk yar mën naa tax nit ki du développé ci wàllu àddina te ku gis ni jamono bi di doxee ak léegi xale yi ni ñuy doxee ni ñuy waxee ni ñuy defee mbir yow da ngay tiit waaw da ngay tiit franchement ku gis ni jamono gi di doxee ak ni nga xam ne xale yi moom la ñu doxee da ngay tiit oustaz euh, ci sa biir kàddu comme li nga wax ne gan day ñëw ñu laaj ko ba xam ban mbubb la soloon mais tey jii dama taxaw seetlu ne gan day ñëw waaye yaay ja wala papa ja day daw woo doom ji ne ko dawal nga xool ma sa tànt di wala sa ndijaay dalalal ma ko ci biir saal bi waxtaanal ma ko maa ngi ñëw est du parent bi mu muy pousser xale bi à que mu xam gan gi naka la mel. léeg-léeg mu xool gan gi kan la su dee ku amul solo mu ne ko nekk nekkuma fi su dee kuy laaj la mu ne ko nekk nekkuma fi su dee ganu kilifa la nag wala kum yaakaaree dara mu jóg xam nga bàyyi bu saaxu daan na nettali ndeysaan moom yàlla na ko yàlla yërëm te yokk leeram mu ne soxna si dafa tëdd na xale yi ku ma fiy seet nee leen ko nekkuma fi parce que xam na ki war a ñëw xam na itam heure bi muy ñëw xam nga am na ñu bari ginnaaw bu ñu añee ba pare au lieu ñu noppalu ci la ñuy dem di waxtaanee wax loola ba doo tara doo tara sax nelaw mu ne leen ku fi ñëw rek ne leen ko nekkuma fi am ku fëgg ndekente ki ñëw dafa bokk ci ñi nga xam ne heure bu ñëwee rek fekk bëtam xonq ñu weexal ko maanaam moom daal fu ñu ko fekk defal ko teraanga am na ñoo xam ne ci ay nit loolu dafay am am na koo xam ne foo dajeek moom dangay ngay xam ne tey moom sama affaire dina baax. gan gi nuyoo xale yi ne ko nekk fi mu dem mu génn maire bi ne leen koo kan la ñu ne ko diw te mu xam ne diw mu ko amal njëriñ la mu ne lu ngeen ko wax ñu ne ko nekk mu ne ko déedéet dawal ne ko maa ngi fi mu daw ne ko maa ngi fi déjà moom day jàngal ay doomam wax lu dul dëgg ñaareel bi ci des xale amul capacité dalal gan may ko ndox mu naan toogal ko lii bi jox ko nàngam loolu dafay wane ñàkk xam gëddu doomu aadama ñàkk xam gan ak ni mu toll fa yàlla parce que yeneen moo ne gan heure bu duggee ci kër waa kër ga ba baa gan gi di fa jóge ñoom ñëpp yàlla jégal na leen seeni bàkkaar ndax coono biñ nar a daj ci gan googu ak di ko may lekk di ko may naan di ko jéem a teral teraanga jooju dafay tax yàlla da leen di jégal seen bàkkaar yépp mais loolu ku ko xam doo ko woyofalee noonu ñaareel bi ci des xale dafa sob day téye gan di ko ajji ci kaw ba ci suuf jéem a xool kii mooy kan ak li mu yor kooku bu demee da koy nettali jiwaat loolu la mag ñi daan daw ci ndaw ñi moo tax ñu leen di limité di yar seen xool di yar seen di yar seen nopp mais léegi déglul kàllaama xale yi ci mbedd mi léegi wax yi niy wax yow wax yi niy wax nii bu mag ñu toogee sañoo ko wax seen biir ndax kàddu yu vulgaire yu ñaaw nag seen colin ku ci war a dem ci jàkk da nga koy te doomu nga seen colin ku toogoon ñu ne la kaay seeti sa papa diw da ngay c'est-à-dire loolu mooy wane ne col gi baaxul kon nag loolu li muy wane mooy ñun xamuñu njëriñu yar te woykat ba nee na woon ma fàttali mbokk yi ni bàyyi xel imam Babacar Sylla moo ànd ak diaspora bi fii ci Safina TV Safina FM woykat ba dane laysa al yatimu alladi qad maata waalidahu inna al yatima yatima al ilmi wal adabi nee na jirim du ko ndeyam de ak ku baayam dee déedéet nee na jirim dëgg mooy ku amul xam-xam amul yar ku amul xam-xam amul yar te soxna am yi xar mu nu yar sax moo gën a cher xar bu nu yarul tabaski ñu bari xaru yara leen gënal xar bu nu yarul kon nit yar moo gën nit ku nu yarul tabaski koo woon bii xaru yar la bii xaru sàmm la nii rek danaan la xaru yar bi laay jël waa kon koy nit buñ ne kii la nu yar kii yaru yarunu ko war nga xam ne kii nu yar moo gën ki nu yaru ki ñu yar moo gën ki ñu yaru kon yar mi ngi place am nañ ko delluwaat euh, place waaye imaam tey dañu seetlu dama daan euh, toog ak sama maam mu naamaan bu njëkk ba ñoom bu ñu daan gis ab xale mu romba def naka sadul noonu yow jur ko ñàkk ko jur sañ nga ko talaata wala sañ nga kaa orienté waaye tey jii kenn jën kenn ñemeetu ko léegi lan moo ko waral Euh, li ko waral mooy façon yar bi nga xam ne moom la ñu def ci ñun léegi moo di ñun bu njëkk dañu amoon suñu éducation wu bopp xam nga junj naa la ko éducation bii ma junj sànq nii suñuy maam ñoo ko doon def mais après dañu am benn éducation occidentale boo xam ne dafa ñëw gane suñu mooy yaru tubaab bi ñoom dañoo gëm liberté ñoom dañu teel a libéré xale bi teel a xale boobu nag. lañu fexe ba gëmloo na ku nekk gérer sa bopp yaay ji di gérer boppam baay bi di gérer boppam xale yi di gérer seen bopp légui loolu dugal nañ ko sax ci sëy yi da ngay gis jëkkër ak jabar sax ni ci benn nekk kenn wul sa morom ku nekk ak say activité kenn xamul sa morom dara te loolu lañu fexe ba kenn ku nekk ñu ne la sa doom mooy sa doom ku dul sa doom du sa doom doom sax am na ko ñu xaw a ñaaw la daan waxee naan doom sa doomu ginnaaw voilà foofu la mën a doom sa doomu ginnaaw cest à xam nga kooku mi ngi lay wan yow sa doom man du sama doom mag ñi nag dañoo gëmoon ne képp ku la mat baay sa baay la képp ku la mat yaay sa yaay la képp ku tollool sa doom sa doom la soo ko yar ko parce que xamoo kan moo koy jëriñoo ëllëg dañ daan wax ni jigéen bu juree doom am fóot munu weer la rek yàlla rek a xam kan mooy weri moo tax ñoom kuñ ma saan fekk ci mbedd mi nga def lu jaaduwul dañu lay yar parce que dañuy jàpp ne yow doomu ñëpp nga lagi nak dañ ñoo gëmloo ne yow sa doom sa doom la man sama dom sama doom la sa yoon nekkul ci moom léegi nag yow am accès sama dom. bis boo le sama dom. dama naan la lu tax ngay door sama doom So bëggee loo door da ngay dem wuti doom c'est-à-dire comme si doom dalay neex rek nga dem jënd ko dellu si waat kon loolu nga xam ne yaru occident bi dafa ñëw gane si suñu biir impacté ñu ba séparé ñu ci famille yi nekkoon benn léegi nekkatul benn nit ñi ni ñu booloo woon ku nekk xajal sa bopp ci sa ci sa moroomu dëkkandoo léegi amatul moo tax léegi xale bi ci biir kër gi mën nañ ko corriger mais bu génnee roi lay kenn du na ko sa bët bi suuf a ngi ci kenn mënu ko yónni kenn mënu ko def leneen waaw loolu daal laa waaw kon li ñu naan uh, sama bi mu ñëwee ba tey la suñu réer maanaam ku nekk danaan lii maaka moom kon keneen bokkatu si waaye oustaz damay dégg tamit uh, ñun jeunes yi suñu wàll suñuy kàddu maanaam suñu prononciation suñu prononciation yi nga xamante ne si mooy ay moo mu xaw a vulgaire comme ni nga ko waxee ba tax na tey jii sax dangay génn da ngay wax ñu ne la doxal ku amul kilifa jënd sa kilifa te ku nekk ndey ak baay nga am. dëgg la dëgg la te xam nga bu fekkonte ne sax ki ñu naan doxal am na benn maturité boo xam ne dana mën a régler boppam à la mais xale yi ma gis fii nga xam ne ñooy dox seen dox kenn du leen yilif. seen bopp yi alif newu ci seen bopp yi ndox ndox laa wax de ndox newu ci seen àddina yépp jàpp nañ ne lekk la ak naan ak sëy nangeen ma baal ci baat bi gis nga bu waajur yi xamoon njaaloo ni mu mel ci dëkk bi wallahi da ngay tiit man dafa bokk ci point yi ma ñoroon ma di ci def ay gëstu 13 ans 14 ans 15 ans gis nga xale yi tollu aas bi léegi ñooy ëmbalante nañ ma baal seen àddina yëpp sexe lañu ko def léegi jàpp nañ ne lekk naan sëy lekk naan sëy lekk naan sëy te xale yu toll ci jàng la nekk ci école bi di jàng mais farantu comme c'est pas possible waaye léegi xale bu toll noonu nga ne ko doxal sa dox man gis naa xale bu am 17 ans bu góor ëmbal xale bu am 14 ans ñii fan lañ jëm 14 ans jigéen di jàng am xale bu am 17 ans ni moom ëmbal ko léegi ñooñu ku leen bàyyi xale bi fu ñu jëm ak ñoom te dara waralu ko lu dul dañ leen a bàyyi ñu dox seen dox di régler seeni problème te amuñu euh, maturité boobu kon man dama gëm ne waajur yi nanu bàyyi démission bi ñu nekkee ñu retiré waat xale yi yar leen xale mënul yar boppam soo yaree sa taaw nag sañ nga sa taaw yaral la sa doom yépp mais mais sa doom yépp doo leen bàyyi ñu dem mais da ngay bàyyi ki gën a mag ginnaaw boo ko yaree ba pare moom mu toppatoo ay rakkam di surveiller di leen yar parce que moom mi nekk ndaw moo leen di gën a xam fi ñu toll ci jamono waaw moo tax léegi daal waajur yi euh, xooluñu xale yi bu tëdd di jot waajur yi ñoo njëkk tëdd ah ñun de suñu papa moo ñu daan tëj guddi boo reeree ba pare mooy tëj bunt yëpp tëj sa néeg yow bu fajaree moo koy tijjiwaat mais ñun léegi mag ñi ñooy njëkk tëdd xale yi mag ñi deux heure tëdd nañ xale yi di nekk ba 2 heures du matin ni ci ay téléphone ma nga France ma nga Espagne ma nga Italie mi ngi fu ne xamoo ci dara tëdd ba trois heures du matin mu da ko tëdd nelaw yeewu 9 heures am na xale yoo xam ne nii midi la ñuy añ midi midi la ñuy ndékki 5 heures la ñuy añ reer jëm ak ñoom minuit lii mooy ban programme c'est-à-dire waajur yi nañu dellu si waat ñu xam ne dañu am responsabilité yar njaboot gi yàlla daf nu yarloo yàlla joxuñu doom yi nii rek pour jox ñu ko nii non non daf ñu ko jox pour ñu defar ko وقفوهم انهم مسؤولون واجر دنا واخو يوم القيامه يوري تياب جو بري جال يالا ن اريتال ما ньоญو باسكو اي ريسبونسابل لاني مون دنج لينا جوخون جابوت نانيو خار ني لاج لين لاج بوبو نكا واجور ييب دي باي خيل كون مبوكي آه، مبوكي باي خيل سين مبوك امام باوكر سلام موي اندك جاسبورا بي في سفينا نيون اندك يين سي وقتانو تربيه بي بسم الله waaw euh, jërëjëf imaam comme ni nga ko waxee waajuri sàmm lañ te sàmma bu nekk euh, àllaaxira dinañ la laaj ana naka nga doon euh, sàmmee li nga xamante ne mooy sa njaboot kon nag ñu bàyyi xel bu baax a baax kàddu yi te ñu delloosi waat ñun waajur yi ak ñoom waajur yi ñu sàmmaat ñu te ban ñu bàyyi te naa ñu dox leen ku amul kilifa jinne sa kilifa jinne waruta mën a nekk kilifa kilifay kenn waaye imaam tey ji lan la diine wax ci xale tey yi ak yar lan lañu si diine wax Euh, jërëjëf soxna Ami xam nga bi may junj sànq wax naa ne sunu borom joxuñu doom nii rek pour joxuñu ko nii parce que daf ñu sopp jox na ko déedéet doom responsabilité la ku ñeme woon dëgg gis nga bu ñu la woowee tey déjà émission bii ñu la jox responsabilité la est-ce que da nga jàpp ne émission bi dañu la ko jox nii rek parce que da nga ciy def lu la neex noonu non dañu yaakaar ne Ami bu ñu ko joxee émission bi dina ko def mu jaar yoon. petit kazalika lu tax ñu jox ko caméra bi parce que dañ jàpp ne liggéeyam la te mën na ko defar waajur bu la yàlla joxee doom parce que daf la defarloo jàpp nañ ne yow am nga jumtukaay yoo mën a defaree nit parce que kii ñu la jox nekkagul dara ci yow la dépendre mu nekk yéefar ci yow la dépendre mu nekk jullit ci yow la dépendre mu nekk nasaraan wala yahud ci yow la dépendre léegi nag bu ñu la ko joxee rek nga jël sànni ci mbedd bi pour yow jeex na non jur sànni dëgg xam nga la nga wax jigéen day am doom dem sànni ci mais jur sànni dëgg mooy jur yaroo loolu mooy jur sànni képp ku jur sa doom te jàngaloo ko yaroo ko yow sànni nga sa doom te loolu dañ koy layoo yowmal qiyaam junju naa sànq aay bi wax ne waqifuuhum innahum mas'uluun ay waajur yoo xam ne julli nañu woor nañu def nañ lu baax lépp luy lu baax def nañ ko mais le problème mooy yaruñu woon seeni njaboot amuñ ci woon sax benn xool bu dëgër bi ñu dem yowmal xiyaam ba bëgg a jàll ñu ne leen taxaw leen parce que yéen dañ leen a dénkoon kaay leen ñu regle li ñu leen dénkoon mais boobu coono bala ma caa yegg du ma ko lijjanti fii ci àddina suñu boroom waxaat ci alquran ne innama amwalukum wa awlaadukum fitna seen alal yi ak seen doom yi fitna la mais kon kay war nga xam ne yar dafa metti parce que toppatoo bi ngay toppatoo xale yi pour ñu jàng di toppatoo pour ñu wér di toppatoo pour ñu jub loolu coono bu metti la fitna boobu waajur bu ko nanguwula affronter ak sa doom yow mate woo ko da nga war a nangu sonn ci njaboot gi da nga war a ci ñàkk nelaw ci ñàkk sa alal ci ñàkk say xalaat ci ñàkk sa xam-xam ci sa njaboot ngir fitna boobu yàlla di wax ne day ñëw ñëw mais bul jàppee ni fitna bi rek mooy bu ëllëgee xale bi di la saaga xale bi di tuur sa rongañ fitna boobu yow yaa ko créé yow mais fitna bi bëgg nga def ko avant mooy nga fexe nga sonn ci ñoom ci yar ngir bu ëllëgee ñoom ñu noppal la loolu tamit incha allah euh, waajur yi kon nañu bàyyi xel jàngale bi nga xamante ne imam Babacar Sall wax nañu ko si wàllu